Dakar, notre plateforme mais mais sooy dama laa topp Dakar boo ci biir aéroport bi maa mën a toppee rek bëgg rek xam foo jëm sooy wax nga foo jëm ba tey da boo bële da mooy junj ne nga ma matériel yi gars yi décembre la ñuy jaay yow da ngaa jeexal da ngay wutiwaat sooy foo jëm. actuellement di tournée laa xam nga tournée. ngay dem ni tournée mais sooy la moom nga bëgg jaay doole <laughs> di néewal gaay doole. néewal non pourtant nag. néewaluma leen doole ñoom ñooy maanaam ñooy songu ci luñ mënul parce que adduna mm. nag dafa am ñaar gis nga ku def loo mën kenn mënu la da ngay mm. def sa tolluwaay son bu ñëw def tolluwaayam mais boo bëggee def sa tolluwaay def tolluwaayu son bu sa mën di day feeñ wala mm. comprendre léegi nag sa mën a di bu feeñee man sama doolee mooy feeñ fekk aw doole yàlla rek am doole léegi nag ku comprendre day foog ne dama jug pour jaay la jaay la doole fekk man du ma concurrent bi concurrent bi Abbas la mi jaay ko téléphone man du ma jaay ko téléphone man ruube kat laa quoi. yow da ngay ruube man ruube kat laa. jaay ko téléphone fi mu toll nii kii de mooy jaay téléphone ndax ku dikk ci place bi kii la fay fekk. mais mais mais sooy léegi sa biir oto dañu waxtaan waxtaan bu am solo entre ah. Adamo Baye Zal nga am loo ci wax mais ba tey ci seen biir. sa sa sa frère Waly njabootam ba léegi seen biir famille sax laay wax yéen coow day amaat saa su ne gis nañu keroog euh, Thiat Seck toog ci ci plateau. wax ni dafay woo waali waali du ko jël daf ko way way wu neex waali woowu ko ba léegi ne ko caat way wi neex na wala dara oto ba ko waali mayoon sax baaxul mu jur polémique sooy ba léegi nit ñi ñu ngi lay xaar nga wax ci loolu wax goo ci jàpp naa ne maa am exclusivité bi loolu ba ba ko déggee kàddu caat Seck ban réaction nga am. waaw man nag daanaka day am yoo xamante ni du ci bëgg a sori mais li ma ci mën a wax ba mën cee wax mooy. Mhm. caat Seck dama gëm ni dafa góorewul car sec waaw dafa gorewul parce que nag bu lëg lekkee alam na ko gërëmee coy mhm. te olof danis nagu ñuul boo ci amee soow mu weex jëlal dégg nga mhm. nagu ñuul boo ci amee soow mu weex jëlal wërsëgu jàmbur tamit lu ci waaye am sante ko borom mhm. dégg nga maanaam yow yaa ngi yaa ngi ci showbiz bi yaa ngi tëgg parce que yaa ngi ci bi chaque jour yaa ngi tëgg bu fekkoon maanaam da koy natt ci sa bopp ba tey yow amagoo loo mën a taxawalee oto exemple kon kii bu ñëwee gis loolu yaramam daw mu yëgati ne dalay may oto même bu fekkoon oto bu bon la la may sax sant ko te dem te dem réparé. te dem defar ko quoi. te dem defar te waali buy may caat sekk oto gëmuma ni da koy woo direct ne ko kaay jël oto bi nangam da koy batale te batale ligne la rek lu ne mën na cee xew. waaw parce que waali nee na man sama yaram moo tàng rek ma ma àbb kenn caabi jox la xaw ma sax ba tey oto bi nu mu mel. Hmm? effectivement parce que waali xolam moo koy tooñ. xolo ba koy tooñ de barke sëñ Tuubaa mais caat daa góorewul rek mais li man man bu doon man de man personnel man fi may taxawee sama loxo ci kaw yaa ngi ma fekk aéroport may tukki waaw billaahi wallaahi tallaahi bu ma waali woowoon ne ma joxal ma caat sekk oto ñu ànd parking oto bu ko neex jël barke sëriñ Bamba ma fay mais mais mais sooy bu fere fere yi ma def ci kii hmm. fere yi bie beeg fere yeeg réservation yeeg nangam ak argent de poche am ak yëpp jënd na oto mais mais mais sooy bu dafa ndànk sànq ne nga ba bu ma waale woowoon ne ma demal fajal ma maara ma dem fekk ko fa mu nekk faj ko tey nga ñëwaat bu waale ne woon moo jox caa caat oto ma jox ko mais mais sooy bu lan la. <laughs> sànq dama laa wan ni preuve gis naa ko la nga. Eh non gis naa ko téléspectateur yi tamit gis nañ ko. ñu gis euh, dama ni la. Mhm. sànq nii dama ko waaj tukki bii daf ma bett barki Serigne Saliou démb la soog a xam ne dañuy dem démb. moom mii Abbas passeport am ci man la nekkoon visa yi yëpp maa ko géré démb la koy soog a daf ma bett tey ji suba bi ma demee banque retiré naa ñaata laa la woon trois cent ah, trois cent soixante deux millions et quelques. Mhm. kon xajuma ci oto. déedéet borom 4 4 42 millions damaa fàtte loolu. sama 4 oto kii jox naa ko oto jox naa Cheikh naa jox naa Cheikh naa oto. Mhm. comprendre jox naa Cheikh naa oto jëndal maam jaara sama oto 12 millions ku ne gis na Hyundai Tucson mhm. jëndal sama bopp RAV4 kii Prado 44 millions kon aw ma problème oto seen borom teral na ma barki Serigne Saliou bi ma waali waxoon ma jënd oto jox du ma ko jëndal dama wax demal ci parc bi oto boobu jënd ma fay yow yow yow waali nga xaar wala caat woo la wala la non man caat aw maa ngoom affaire man sama artiste bi laa am ku ko sopp ma sopp la nga topp ko ma topp la nga bàyyi ko ma booyale ko ci c'est simple parce que caat li ma nekk mosuma cee dimbali parce que maa ngi moom xaw nañ bokk pro euh, kii mais dañoo am différence parce que man damay sant parce que man maa utiliser image Wally ubbi sama place 2008 2012 tuddee ko Faramaren accessoire jël image am teg fa comprendre dem ba ci kanam ma njort ni sama ginnaaw yaatu na ba war naa a demal sama bopp tax ma di demal sama bopp est-ce que kon kooku su ma ko joxee mooy li ma la wax sànq ci oto bi dama war saa su ne diigati un million di ko jox Wally Thiate Seck nag dafa ñëw investirul ci Wally kii moo am ñaqam am yéene ci moom man sax caat xaw ma caat la xaw ma taaw dama naroon wax rakam <laughs> mais xaw ma caat la xaw ma taaw la moom caatam mi ba yàgg ba tey <laughs> mais yéene la bu kii am ci moom rek defal ko léegi nag bu la defalee bu baaxee jëlal bu bonee jëlal ok c'est simple quoi mais jarul polémique beeg ñaawal amul njëriñ mais nag c'est normal yenn saa yi tamit gars yi dañuy bëgg a fay tax ñu laal ñu laal ñu laal la ñu warul laal de pourquoi ku fay bëgg taakaar rek engagé waale waaw mais guy gu daar la de xale ci gole yëpp ci waa ji la ñuy jàngee yéeg moo tax daal ku tënk ba say waaw mu ko xam nga kër bukki la te kër bukki du ñàkk coow du ñàkk coow dégg naa loolu ah, kër bukki du ñàkk <laughs> wax dëgg yàlla ndax xamante wuñu sax dèjà man mosuma ko bàyyi mosuma dem ko barki Serigne Bamba su ma woon ne ma kii ma ko wax demal du ko jox de dama naan ko nañ dem ci parking nga tànn oto ba la neex jël mais caat seeg kañ ngay dem si waali bu wax ak kii barki Serigne Bamba wallaay lazim feneen fu ma bëgg a dugaat ak yow nga baal ma euh, maam Ndiaye Savon mami Cobra wala maam Ndiaye Savon ak keneen ak keneen ak keneen ban gis-gis nga am ci loolu parce que yaa ngi ci milieu bi aussi tamit quoi qu'on puisse dire moo tax ñu am sañ-sañu laaj la loolu. waaw foofu nag bu doon am na lu ma ciy wax xam nga man nag coowu jigéen du ma ciy faral di wax surtout jigéen ñoo xamante ni nawloowu ma leen bu dëgg dëgg rek. parce que man maam Ndiaye Savon suivre ma bu dëgg dëgg. nit mooy ñëw ne ma yaay maam jaay savon bu góor wala nangam ma ne ko bu ma ko waxaat parce que man naw la wu ma man képp kuy la wu bokkut bokk ma ci ndeysaan waaw bi mu nekkee diw xeesal ma gis ni yàlla da ko sib rek man pare naa ci yàlla seet na ni bu dëgg dee dëgg rek sama xol naw la wu ma leen moo tax yooyu moom du ma ci yey yàdd muy maam jaay savon muy mami Cobra muy keneen ak képp kuy jaaykatu diw man naw ma la loolu daal amoo loo si yooyu moom aw ma lu ma ci yéey yàbbi ma dem ak yow nag ci coow lu rëy li gis nañu nga def vidéo sooy bu wax ni Chine. mais nag sa waa ji caméra bi na de mu ngi may tënloo. non saa yi mu ngi lay ñu ngi lay am wel nii. Ah, wel lañ la mais mais mais sooy bu dañu gis nga def vidéo wax ni Chine boo fa demee boo yóbbee 3 millions mën nga cee génn mu jur polémique bu rëy chaque jour ñu gis nit ñi collage sa photo di ci wax d'ailleurs am na ci benn femme boo xamante ne yaakaar naa yaa ak moom ci yoon ngeen mujj ak yooyu. Hmm. lan nga ñu mën a waxal nga tojal ñu ko pour ñi lay seetaan wala jeunesse bi. comprendre yow dafa mel ni sooy wax da ngay doppe xale yi ni ña fa nekk di leen wax loolu mënul nekk dañ leen a soxore wala dara dañu bëgg nga tojal ñu ko. waaw loolu yan saa yi ma gis mu jur polémique. Mhm. mais damay njortu maanaam xaw ma yabaate la xaw ma iñaan la xaw ma complexe la. parce que am na ñu ma dégg ñu ne 3 millions boo ko yoree dem Chine boo demee ba yegg 2 millions ngay dese kon kooku 3 millions yi dagg ci la dagg billet. Mhm. maanaam tontu nga ma mais dégluwoo sama vidéo kon dañ laa wax rek informé nga ñëw amoo information bu baax ñëw tontu ma man li ma wax dafa leer samay vidéo 3 millions ku ko yóbbu Chine kon loolu billet bokk ci et puis tamit yow mi ko wax boo mësee tukki bu dee benn yoon du ñaari yoon te yëggagoo Chine Dubaay nga yem comprendre hmm. nee nga 3000 am na ku ma déggaat mu ne 3 millions boo ci jëndee boo ci jëndee kii boo ci jëndee xottu conteneur rek 3 millions yi day jeex hmm. mais xottu conteneur yi mais mais yow bi nga demee ñëw lu tax jëndoo xottu conteneur pour charger conteneur yow bagage yi bëri me nga yor lu tax charger woo conteneur ok nañu waxante dëgg li tax chargé ko conteneur maanaam faaw faaw ñuy wax booy dëgg quoi nañu waxante dëgg nag carrément dama lay wax loo mën a loo mën a dégg amul sax fii lu ñuy laax-laaxal ko leeral mhm. faaw ñu wax nit ñi dëgg 3 millions boo koy kaay ma jox la sax yow b yow yow jeune bi nga xamante ni yaa ngi liggéey tàmbali di investir kaay ma wax la noo koy tegee 3 million nga yor dem Chine pour jëndi bagage da ngaa jënd bagage ba pare am nga ñetti 23 kilos parce que nawle boobu di wax noonu musul chargé ko nen xamul li CBM di jar. Hmm. da ngay dem chargé sa bagage fret ñëw. léegi li tax nga def loolu yàlla di la suturaal mënoo koo dëggale woo ci ñu def ko pour yàlla pour gis seen bopp mais yow yaa ngi koy def di ci gis sa bopp léegi nga ni booy nañ chargé conteneur 3 millions mënul dara ku ko am ñëwal ma boole laa koo xamante ni di la mën a jëndal looy encaissé sa xaalisu jàmbur a de mais dama lay jox may la jën jàngal la ni ñu ni ñuy nappee da koo gën da koo gën parce que da ngay ñëw ma ne la 3 millions nga yor 3 millions boo demee boo ci jëndee bagage ba pare am nga ñaari 23 kilos ñaari 23 kilos yi am nga 10 kilos beneen mooy 7 kilos bi ñu lay may léegi 23 fois 2 du 46 mhm. léegi 46 kilos yi boo jëndee bagage doo xool li ëpp importance yi nga xamante ni bokk na ci lii gën a gaaw a jar comprendre loolu ngay jël indi est-ce que hmm. boo ànd ak boo dikkee boo jaayee première soxi tombé fret bi ñëw nga jël la nga jaayoon coppati ci fay ci fret bi récupérer say bagages yi boo récupérer say bagages léegi kon 3 millions yi bagage bii nga ko jëndee bu dee 100 pour cent nga ci am tabarki Serigne Saliou da nga ci am 100 pour cent boo millions yi njëkk a génn ci njaay mi jël ko moo nekk sa capital léegi nag sa billet bi moo ci des kon dese nga beneen 3 millions boo xam bagage bi bu ko xaar billet bi njëkk dag di jëlaatal billet bi dag bi jëlaat sa 3 millions demaat kon fekkee 3 100 euh, pour cent la kon war nga am 3 1 million 500 nga jëlaat pour billet beeg say nangam ak léegi yow nga jëlaat sa bagage nga jëlaat sa xaalis dagaat billet dem am nga fi valeur bagage boo fi bàyyi bagage bi 1 million 500. xam nga mi ngi sa ginnaaw nga bàyyi. léegi tey boo demee deuxième tukki ku ne xam ne ne moo dàq ci tukki parce que deuxième tukki fayoo gidd yenn transport yu metti yenn. Mm. Mm-hmm. fayoo tukki yenn transport yu bari yi fayuloo ko comprendre fayoo mm. yenn fere yenn fere yu bari kon am nga am nga intérêt bu bari quoi. wala mm-hmm. comprendre nga waaw. comprendre naa waaw. chinois ah, bi doon la jaay. ñëw nga ñëwaat kon da lay wàññil c'est parce que ñëpp bëgg kon chinois bi faaw mu wàññi kon deuxième tukki fere yi nga defoon ci premier tukki. doo ko def doo def ci deuxième tukki. léegi am nga bagage boo bàyyi Sénégal bu tolloog valeur un million cinq cent mi ngi fa woon ndax cent pour cent nga amoon exemple léegi tey ñëwaat nga indiwaat trois millions jëndaat nga sa bagage ñëw boo jëndee sa bagage ñëw ñaari a may boo àndee bu ko jaay pexe laa lay wax quoi. d'accord ñaari 23 yooyu boo génnee aéroport stockeel sa kër léegi bagage bi nga ko bàyyi woon mooy bénéfice ba jël ko épaulé ko parce que sénégalais boo see ñëw day xaar li nga indi euh. épaulé bagage boobu balaa muy ñëw dina tombeeg lee yegg si nga jël la nga jaayoon fay ci fret bagage boobu génn nga jaay kon bàyyi woon nga fay un million cinq cent boo defaatee noonu fi un million cinq mm. boo ko dajalee bénéfice bii yu génne yoroo cinq millions ci <laughs> léegi boo ko defee defaat ko defaat ko amoo dix millions bénéfice ëllëgee doo mais nga bëgg a tëb ne 3 millions la euh, kii 3 millions la nga naan ko bul dem boo ci jëndee compte conteneur amoo fooy jëlee bagage nangam nan nan la yoree 3 millions di jënd conteneur di chargé conteneur. mais bu li ngay wax ni mu yow mosuloo ci am problème nga dem fekk ñuy liggéey lu mel noonu ay Sénégalais ñu bëgg la ci créer problème. dem naa Chine xaw ma da nga am information bi ngay ñëw xaw ma nu mu demee noonu. non damay damay laaj quoi. mais dem naa Chine wallaahi laa bëgg ma faa dóor barke Sëñ Tuubaa benn waay fekk ñu toog ñu ci café gi mu ñëw saaga man day rek dox sama kaw xaw ma li mu doon ah, man maa ngi sëgg sama téléphone boobu ma sigi gis gaa yi di acté ma de nu mu demee noonu ñu ne ma ci yow lay jëm mais heureusement adduna maanaam booy nekk ci ndaw ñi ndaw ñi dañuy nekk ci yow man fu mu mën a nekk am naa fa ay soppe ndeysaan ñoo taxaw jënd ko calmé ko lépp jeex comprendre mhm. waa ji biñ ko expliqué ma wax ko sama yéene billaahi wallaahi tallaahi tey sama xarit yi la bokk ndeysaan maanaam group bi doon créé loolu mhm. bi ma ci xoolee ki ci gën a mag bi ma ko waxee sama yéene barke Serigne Bamba tey ci samay xarit la bokk xam li ma wax man sama jabar sax yow lay siifu barke Serigne Touba mais li ñuy bañ mooy ma wax ko parce que mais li ma gën a neex ci wax ji dañ ne ma même 2 millions nit indi na ko génn ci kon boo ko waxee xam nañ ne mën na nekk mais am na loo xamante ne da ngay yàq business su nit ñi. Hmm. mais tey boo yàqee business su vingt vingt personnes mais defar business su soixante dix personnes. waaw ah, niru nañu da ngaa yàq mais da ngaa du perdement de wax dëgg neex fa yàlla. na nga waxante loolu am solo mais sooy bu duñ la téye lu bari comme euh, temps bi ah, tey si yoon nga nekk sob naa soba sob dugg si oto fekk si loolu fii man lay bëggee di la kontaane bàyyi la nga tàggatoo ak ñoom loolu seetaan. waaw en maa ngi jaajëfal ñëpp di leen wax nag eh, coow bari de. non li nga fi bàyyi nii. ñu jëm nii. Hmm. bagage yi ci réew mu président la ndax président yi. avancé jaay laay génne man aw problème boobu jaaka téléphone baa ngi nii. avancé jaay. <laughs> kii mooy jaaka téléphone. Bamba ku yàkkamtiwul. Hmm. boo toogee xaar ma ma lekkal la décembre. yaa dig loolu kaay man lan laa maanaam lan la nit mës a jaay lu ma ñëw jaay man lu ma mës a indi rek lu ma créé la. gis naa nga def vidéo sooy bu. dugg si paan di sangu di tooyal sa téléphone. jigéen ñi nee na yaa ngi yaa ngi jàngal seen jëkkër yi nag méthode bu ñu war a doxaanee. loolu dama la ko fàtte suuf la. mooy li ma lay wax man du ma jaay ko téléphone man ruubekat laa. <laughs> ah yaa ruube gem de. et puis et puis loolu damay wóolu ni. maanaam li ma yor dama koo xam xam nga am na ñu may dégg ñu naan téléphone du pour ndox nangam nangam déedéet da ngaa juum da ngaa jaayut lu baax am na ndox téléphone bu yàquwul tey loolu xanaa jaay lu ma jaay la sama téléphone defal la facture garantie service après dugal ko ci nga dem dugal ci ndox téléphone bi yàqu boo dikkee maay fay dégg nga ma dégg kon ñoom li ñuy jaay moo baaxul nañ xoolaat seen bopp te ñoom dama leen tontu duma ak ñoom ñoom ak baas na <laughs> yaa leen mën daal tayo du wax barki Serigne Bamba kii mën ñëpp léegi Abbas Abbas de chargé boobu fees jox ko jox ko yat muy dóor ñooñu bàyyi leen bañ am njëgu passeport ñoom seen passeport rafetagul ci Ah, amaguñ temps non mais sooy bu nag di bi ngay def séjour bi ah Dakar dinañ la namm de. en ah, maa ngi leen di rendez-vous bi après la. Eh. Hmm. li ma daas. waaw stock bi toog di ma xaar ak stock bu may jëli mais nag mariage yi nag faaw ma yëngalu ko nag de. man xam naa am na looy waaj ci biir bi am na loo baay Eh, ziar naa leen naka mu. yéen a fit quoi sooy boo ngi noonu jaajëf fit sooy boo ngi noonu sama waaj yi yëngal na bi doo dem car sek sooy bu boo ñëwee may la del déglu del xool.